voilà euh, mbokki de mbokki et ak ñi ñoo di auditeurs euh, Prestige TV Prestige FM ak tous les supports yi nga xamni le ci groupe Prestige ñu ngi leen di nuyu ci dimanche bi le mu 9 juillet 2023 ñu am tambali ben émission bi nga xamné ne ñu ko duppee ñu ko duppee sans détour sans détour nak boko ko moy euh, émission bi amul nebo moy premier numéro bi nga xamné man ngeen ko suivre euh, ci seen plateforme yi nga xamné ñom ñoo nek ci groupe euh, Prestige à travers la radio 95.5 FM fi nga xamné nak ñuy émettre fi ci Thiali. té nak moy premier numéro seen émission bi nga xamné nous avons tout sans détour sans détour nous avons mën nañu waxtaan ci sujet politique ak société ak yeneen problématique problématiques yi nga xam ne dafa interpeller la société ñu am mbégte nag di dalal ki nga xam ne Pape Doumbouya di directeur général wala président directeur général bu groupe Prestige nga xam ne dafa ëmb support yu bëri d'abord ñu ngi koy gërëm ci li nga xam nangul nañu suñu invitation euh, loolu nag pas évident monsieur le directeur général nous avons lay gërëm bu baax baax ci li nga ñu nangul euh, nek invité premier numéro émission sans détour manam amul nebo Pape Doumbouya ñu ngi lay nuyu. waaw ma ngi lay nuyu Isidore di nuyu euh, képp koo xamante ni auditeurs yi nga xamante ni ñuy nekk ci euh, Prestige FM nga xam ni euh, réalisation Prestige bu bees la di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñu ngi ci télé bi parce que léegi mën nañu déglu suivre ñu en même temps di nuyu Thiès ak li ko wër yëpp ak eh, bépp mbokku sénégalais yoo xamante ni tey jii ak àdduna yi xam ne ñu ngi ñuy suivre ñu ngi lay remercier bu baax ci ci ci ci ci ci invitation bi. Mm-hmm. Euh, di la remercier aussi ci tàllal loxo bi. parce que c'est pas évident. Mm-hmm. parce que ñëpp xam nañ ni jot amul. Mm-hmm. mais boo consacré sa tuuti ci sa temps ñëw di ñu épaulé mën nañ la dire parce que tey jii mën nañ ni euh, presse fii à Thiès moom macha allah yéen a ngi def liggéey boo xamante ni mucc ayib la donc suñ la amee ku mel ni yow di ñu interview dañ ciy sawar baax. d'accord euh, voilà ñu fàttali ne suñu sponsor officiel moo di Ocaali ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax ci li nga xam ne nangu nañu sponsoriser bi la émission nga xam ne émission dominicale la maanaam chaque dimanche lay jàll fi nga xam ne moo di. Prestige FM ak support yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, li nga xam ne moo di groupe bi wax naa ko sànq sujet yi nga xam ne dinañ ko waxtaane tey euh, bëri na euh, muy politique économie ak société mais ci wàllu politique mën nañ ci taxaw tuuti ndax dafa am li ñuy wax principe bi ñuy wax ci journalisme principe boo xam ne mooy principe du mort kilométrique maanaam mbir bu xewee ci ab dëkk Euh, li nga ci njëkk waslu sa ak mooy li nga xam ne moom moo la gën a jege te li ñu gën a jege ci wàllu politique mooy euh, gis nañ ne fi ñu nekk nii ñu ngi Thiès Nord Thiès Nord ku ko wax wax notre maire Birame Souleye Diop nga xam ne euh, yoon teg na ko loxo ni ki ñaari fan ginnaaw benn sortie bi nga xam ne def na ko te ci sorti boobu sax def na def jot na defaat beneen vidéo ngir rek jéggalu ki nga xam ne moo di njiitu réew mi li ni mel bu dalee ki nga xam ne moo di biram su lay Diop bien vrai que nekkoon na sa adversaire ci walu politique ou sa adversaire la ba léegi sax meun nañ ko wax waye nak moy sa maire commune liko dal tay ban jangat nga ci am monsieur Pape Doumbouya. waaw waaw lolou mom vraiment euh, li dal euh, lu xaw dis le la lu metti le parce que au-delà de adversité bi ñu amoon Birame Souleye dañoo am relation yu bax vraiment muy nit ku bax ku am am yeg yeg ci nit wax deug neex yàlla loolu rek lama ma depuis ba mu nekkee fi mère dañuy déggante à chaque fois buñu ñu wax dëgg lu rafet rek dañuy la ñuy séex voilà euh, donc liko dal ñukoy ñaanal yalla def ci ndox bu sedd. Mhm. franchement ñukoy ñaanal bu baax parce que euh, au delà de tout man li ma ci gëna marqué moy bi wax ji amé automatiquement. Mhm. génnaat na jéggalu. jéggalu vraiment en tant que julit mhm. vraiment pour man ba mu ñaané mu ah loolu moom pour man wax ci jàmm comme on dit une faute avouée est à moitié pardonnée loolu la tubaab yi di wax daal absolument absolument waaw li ci des nag mhm. mbirum yoon la yoon dafa sew dëgg la donc mënuñ ci commentaire décision de justice mais ñun daal li ñu mën mooy mhm. en tant que humain en tant que di ñaan di mhm. delluwaat ñuy tàll suñu loxo di jéggalu parce que ñun mooy suñu maire aussi donc euh, euh, lu ko dal daf ñuy dal waaw pour man ñu ngi koy tàllal loxo président xam ni comme jégalu na rek ñu jël dossier boobu teg ko de côté daal. D'accord. accord euh, wax nga ko donc euh, mbir mi mu ngi ci donc euh, Nam jégalu na yoon mu ngi def li nga xam ne moo di liggéeyam koy ñaanal rek moo mu yàlla def ci ndox mu mu continuer di liggéey ak commune bi nga xam ñoo di waa commune bu Thiès Nord ñu fàttali tamit ne moom c' un président de groupe parlementaire groupe parlementaire bu yeewu askan wi fële ca assemblée nationale. toujours ci actualité politique bi l' brûlante également c'est décision bi nga le président de la république Macky Sall jël na ko euh, ñu bëri jàppoon ne président Macky Sall day wut troisième mandat ba ñi nga xam ne ñu ngi ci kawam sax ñen ñi commencé woon nañu vraiment di def liggéey ngir rek ñu won Macky Sall ne moom la ñu àndal bu ñu sañoon mu nekk seen candidat mais président def li nga xam ne di déclaration le lundi passé mu ne ay la yéwén moom du def li nga xam ne moo di troisième mandat d' abord est ce que am nga surprise ci décision bi nga xam le président de la république euh, jël na waaw awma ci une surprise boo c'est ma wax c'est parce que ça fait plus de trois ans def naa fi une émission sorti ak ben benn naataango fi nekkoon bi ma laajee ci mbirum troisième mandat bi li ma ko ci le lu simple conseil constitutionnel mooy validé donc on xaar ba conseil constitutionnel validé mhm. lu validé après nous ñu ñu ñu ñu ñu mhm. parce que président ko xol ni mi doxalee xol attitude am bind na ko wax ko bon je pensais pas que nit dina ci revenir mhm. ça mom amu ci won ben man xamone na ni à tout moment mhm. dina dem ba nga xam moment opportun dina def sa déclaration pour wane ni mom du ko briguer wat mais ça c'était mom vraiment clair dans ma tête euh, mais mais mais c'est ses amis politiciens wala ñi mu andal nee nañu bon troisième mandat demande sociale la woon ñoom loolu lañ ko jappé won wa ku nek am nga avis Mhm. c'est ça c'est normal euh, terrain politique bi moo demee mhm. mais la personne concernée aussi elle a une vie politique bi mhm. donc da nga koy xamee noonu parce que quand on ni li mu def ci gouvernement Ablaye Wade ñëwaat nekkaat ko ci présidence man jàpp dit ne dina euh, su moment jotee dina arrêté defee leneen d'accord euh, mu war a dem ci wut candidat ki nga xam ne mooy nekk Benno Bokk Yaakaar profilu Macky Sall est-ce que gis nga ko ci la coalition Benno Bokk Yaakaar actuellement absolument il y a beaucoup de profils il y en a beaucoup. mais mm-hmm. nag eh, décision du président le euh, moo ko moom. Mm-hmm. moom dina xol moment opportun kan lay choisir. Mm-hmm. on verra. un homme de consensus dina dana yombam. en tout cas consensus je ne pense pas mais ce qui est sûr est certain moi fi question de profil parce que tu as dit à un moment donné six mois des élections je pense. ken xamul kan ak kan moy candidat. c'est que veut dire que question de profil moy posé un très bon profil fera l'affaire sinon casting bi jaarul les gens dinañ nit ñi dem mm-hmm. est-ce que japon tamit quel que soit le profil bi fi Macky rek euh, fissure cassure dina am dans dans euh, le Benno Bokk est-ce que tamit vu leurs ambitions est-ce que nit ñi vous ci dem ci l'opposition bi vice versa. cassure moom du mënul ñàkk. 100 pour cent mënul am. boo xoolee ténor yi nga xamante ne ñoo sekk benn bokk yaakaar. di nga xam ne tey jii le moment opportun bu président choisir di nga gis ñeneen ñoo xam dinañ génn dem ci seen yoon. ça moom c'est évident. yaa ngi ci politique bi yaa ngi ci social bi. social bi sax lañ la gën a lañ la gën a xamee ah mais ci élection yi di ñëw gis nañu élection locale yi yaa ngi fi woon nekkoon candidat euh, fi nga xam ne moo di commune Thiès Nord. une première participation man am c'est honorable xex ba am conseiller euh, peut-être nga am conseil yu wala sax nga maire amul euh, voix yi peut-être plus de mille voix ñooñu yëpp euh, fan nga jëm élection présidentielle 2024 absolument dinañ ci bokk mhm. dinañ ci bokk te mais le moment venu dinañ ci waxtaan parce que aussi bul fàtte ni coalition ci sa kanam dafa xaw a yaatu. Mhm. am na ñuñ ko bokkal am na bureau am na staff ainsi de suite le moment opportun dinañ choisir xam ne ni kii la war a àndal. di ngeen ci bokk nan ngeen ci bokkee. ah ci élection yi dinañ jàppale nit dina am boo xam dinañ ko jàppale incha allah. Mhm. candidat bi euh, kan nga gis jamono ji parce que candidat yi c'est vrai que ñoom ñëpp waxaguñu mais am na ñoo xam ne nañu ku ci mel le président Idrissa Seck

la nek ci terrain bi ne mom candidat la euh, depuis lors mi ngi bouger c'est normal doomu Thiès la. te mm-hmm. gis nañ ni expérience comme niñ ko amé habitude di wax. Mm-hmm. nit ko xamanteni ni la tey jii kenn du ko jàngal mbirum état euh, du koo xamanteni novice la ci donc il a un très bon profil ça il faut le dire aussi maintenant le moment opportun nous choisir parce que aussi il faut le dire ñu sommes ci Benno Bokk Yaakaar mhm. dañuy xaar président aussi mu profil bi mhm. si nous ñi wax nous sommes wax c'est mhm. ça aussi mais il Idi mom de ne ci Benno Bokk mu ngi ci peut-être une coalition euh, lay tech pour dem li nga xam élection yow ci Benno Bokk euh, est-ce que est-ce à dire que Macky Sall tay candidat bo Pape Doumbouya du and ak mom ni mu wa Benno Bokk Yaakaar ci législative yi. bien sûr question de profil la rek tey jii mën nañ teg profil boo xamante ni su fekkente ni arrangé wuñu dañuy dem seet keneen koo xam ne arrangé wuñu parce que je dois dire que Benno bi ma fay dugg il Seck moo ma approché woon dama dañuy dem ci élection dama bëggoon nga ñëw ñu jàpp si depuis lors ñun dem nañ ci nekk si ñu ci jàpp génn na dem bàyyi ñu fa ñun ñoo ngi fa toog donc c' est ça ñun daal dinañ xool mbirum profil la nee naa la élection yi ñu jëm c' est extrêmement important pour l' avenir du Sénégal donc ñu nit bëgg nañ li ñuy choisir duñ ci joom mhm. question de profil lan mooy profil Pape Doumbouya bi mu soxla pour le Sénégal. il faut un expérimenté et puis ak kat surtout un un quelqu'un du travail quelqu'un boo xamante ni il est ancré mbirum liggéey moom da ciy taxaw. Mhm. et pas quelqu'un koo xamante ni tey jii dañuy newal à longueur de d'année dañuy politique. Mhm. il faut il faut vraiment que ñu xam ni Sénégal dëkk bi toll na foo xamante ni liggéey bi dañ ko war a dooleel dans les petites et moyennes entreprises hmm. ñi nga xamante ñu statut jax taxawal leen nga di nga xam nañ ko euh, su hmm. mais pas tout le temps politique politique politique à longueur hmm. daf ñuy def rek depuis quelques années hein, pratiquement trois ans euh, nit ñi ils sont occupés par la politique politique moo gën a fës ci seen mbir ba dañuy fàtte euh, yeneen i yeneen i secteurs yi yow entrepreneur nga gis nga euh, défi yi xaar nos gouvernants ci wàllu euh, emploi bu ñu waxee emploi wax emploi des jeunes dëkk bu mel ni Thiès nit ñaa ngi koy jooytu lu bëree bëri donc wàllu woowu est-ce que à part question emploi bi urgence bi lan la ci askan wi urgence bi bari na mun naa ne tey jii ndox mu tàng la cin buy tàng la foo dugg sa loxo day lakk hmm. c'est ça le problème tey jii les urgences sont partout fépp urgence la hmm. léegi nag à quoi faire il faut quelqu'un du sérail koo xamante ni tey jii bu ñëwee tout de suite day attaquer urgence yi hmm. mais buñ ñu fekk naree nekkaat faluwaat jëlaat koo xam ne moom day ñëwaat pour fàtte ni nit ki su ñëwee assemblée bii xam nga ni da koy tas c'est clair absolument ñu organiser waat yeneen législatif ainsi de suite ainsi de suite mais kañ la ñuy toog pour liggéey. Mhm. lu tax question emploi bi di posé wu à chaque fois lu tax mënuñu am euh, les solutions miracles pour que vraiment côté boobu euh, jeunes yi seen xel mën cee dal ku toog emploi emploi euh, est-ce que gars yi ni ñuy defee politique d'employabilité bi noonu la wala lan lañ ci war a joyanti. politique d'emploi moo moo moo moo des lu bare bare bare boo xoolee sax da nga naan dañ koy fàtte. Ouais, politique d'emploi au Sénégal, ça reste à désirer. Hmm. Oui, absolument. Parce que approche de Gourdis, la visibilité, ça reste à désirer. Il y aura beaucoup de lacunes du côté Bobo. Hmm. Je pense que ni Taïdi, Amna si nous avons une politique d'emploi, hmm. non, qui finit au son, avec le président, vous m'en donne. mais dafa am <laughs> matinal Jakarta tu te rends compte. Hmm. duñ ci sax bàyyi xel. pourtant ñu bëri am nañu formation. mais 95% pour cent ay tailleur lañ maçon menuisier ainsi de suite. Hmm. mais dañ koy abandonné dem di hmm. bon je n'ai rien contre euh, mais amul débouché. c'est extrêmement difficile. dawal Jakarta lu metti la. mais nit ki su gisul lu muy def nan lay def. est obligé jël ci emploi secteur privé moom moo indi secteur privé bi état bi da ko abandonné wala secteur privé Sénégal ñom seen xarañteef dafa dess qu'est-ce qui se passe yow yaa ngi ci privé bi euh, secteur privé dañ koy accompagner secteur privé bu fort dañ koy mhm. accompagner mhm. état da koy accompagner da koy gungé da koy encadrer mhm. tek ko ci ay chartam bu ko wàccee mu délo ci ko su ko mënul mu pousse indi kenen loolu mo war at état noonu la war a à mon avis ci secteur privé mais taxawaay boobu eh, dafa mel ni des na ah. dafa am wax c'est quasi man gisuma ko. Mhm. jàppale bi moo fi nekkul dañuy fàtte sax dañuy daw ba dee. waaw mhm. ah waay fu ne ngay jaar pour mën a taxawal loo xamante ni tey jii di gis ni foofu leen ni fii y a presque une de jeunes yoo xamante ni ñu ngi fiy liggéey. Mhm. mais TNT rek ñu ngi ciy daw pendant cinq ans mën ñu ko am. et ça nous permet juste rek ñu. jaar ngeen fi ngeen war a jaar yëpp. mais structure yëpp fu ñu war a jaar yëpp jaar nañu. fépp fu ñu war a jaar pour kayit di dugg fa mu génn. au moins san emploi. Il y en a plus même dañ ko joxe noonu direct et indirect. Hmm. Mhm. c'est compliqué hein. c'est compliqué secteur privé mon parent pauvre la dañ ko sax hmm. et pourtant état de créer emploi. Hmm. état déedéet day jël secteur privé bi da war L'environnement doole. environnement bi lay créer quoi environnement bi lay créer. ce que defee nit ñi li ci des ñoom ñu continue ko mais su fekkente ni ñooñu moom. mooy loolu. mais am na lu ñu leen di joowee ah hein. secteur privé sénégalais ne tappale bi da cee bëri ci naka. ci naka dañ lay jox marché nga war ko livrer dans les délais doo leen ko def. tamit euh, ce qui fait que état yenn saa day def recours à l' expertise étrangère tamit. mooy environnement bi nit ki soo ko encadré nga jox ko doxul nga dindi ko indiwaat keneen. Hmm. c' est ça hein? parce que ñëpp mënuñu yam niveau. waaw ñëpp mënuñu yam même euh, entreprise étrangère yooyu ngay gis ni gis nañu entreprise étrangère ñëw nañ fi jox lañ leen ay marché teewul ñu kase ko jox ko keneen. Hmm. c' est c' est partout c' est pareil pourtant état bi mu ngi gor góorgóorlu parce que gis nañ tamit ay entreprises sénégalaises yo xam ñu ngi exceller dans beaucoup de domaines absolument absolument il y en a beaucoup. Mhm. mais tay jii bo xolé emploi bi ñukoy absorber deug deug ñu ci ëpp ëpp ëpp ñu ngi suuf secteur informel bi la. Mhm. côté informel boobu. Mhm. la ñu xaw a fàtte tuuti. waaw ah, surtout informel ñu ci ëpp fa lañ nekk. waaw ah ah waaw boo duggee marché central bi rek nga xam mm. ko. secteur informel bi. dañ ko wara gëna taxaw a taxawu waaw bëri na nag nañ ko mën a fa taxaw diversité ko mhm. créé waat ko dooleel leen et puis mhm. organiser leen mais mhm. liñ ci gis ni y a pas d'organisation d'accord mm. euh, bokk na ci politique yi nga xam ne président Macky Sall teg na ko fii ngir résorber résoudre question boobu wàllu employabilité bi parce que ku wax li nga xam ne moo di xëy il faut li ñuy wax secteur transport dem beeg dikk bi dafa am solo euh, créé na fi le train express régional BRT mu ngi ñëw Euh, gis nañu mu ngi ñu ngi ci politique sukkali li nga xam ne moo di raay bi ku wax raay wax cees ndax xam nañ ne Thiès li ci ëppoon ci wàllu koom-koom ci raay bi la doon jóge ak usine bële NSCS euh, taxawaay bi nga xam ne gouvernement bi mu ngi koy am ci euh, redynamiser le réseau ferroviaire politique boobu lan moo ci euh, vraiment jàngatu Pape Doumbouya. non franchement loolu rafet la. te dañuy applaudir wax dëgg neex yàlla bi ma gisee nii. Mhm. Eh, ñu ngi teg euh, raay bi mi ngi mu ngi mi ngi ñëwaat mi ngi dundaat. Mhm. vraiment état bi mu ngi ci investir lu bare bare parce que coût bi foofu aussi dafa exorbitant dafa bari. parce que dafa cher dafa cher. Mhm. te lépp a yàqu woon. parce que boo xoolee ko fi combien d'années dara doxatul woon. mais wax aussi il faut saluer président mhm. def. mi ngi def tout pour mu pour à son niveau mais. Mhm. Eh, secteur informel Sénégal bari. Mhm. yëngatu ci secteur informel il faut ñu il faut il faut ñu approcher réorganiser réorganiser dans tous les secteurs. tous les domaines dina permettre nit ñi mën a souffler un tout petit peu. Mhm. mais ce qui se passe actuellement moi, ni ils sont tous restés à rade. Mhm. bon pas tout le monde mais li ci ëpp sont à rade. Mhm. donc loolu day metti day tax ni tey ji bu coono amee rek. état bi da koy sentir tout de suite. li ngay gis nii ñi mosoo gis kuy tabax di toj. kuy tabax. di toj mosoo ko gis. koo gis muy toj. di yàq. c'est parce que dafa tabaxul. d'accord. kon ce qui fekk loolu sax mën nañu indiwaat ci benn sujet boo xam ne moom moo tenir en haleine de sénégalais mooy temps yi mm. coow yi fi am euh, ay infrastructure yu bëri mm. yàqu ci mm. euh, yoo xam ne xaalis moom moo ko defar suba tamit il faut ñu defaraat ko président wax na ko keroog mm-hmm. te xaalis boobu xaalisu nguur gi suñu xaalis la mm-hmm. ci ñun lay jógee euh, côté boobu message bi nga xam ne mu nga war a les jeunes ci wàllu boobu message bi lan la exactement. mooy message bi ma doon wax rek ci sillage boobu laa ne il faut que tey jii oto bi nga dem nekk ci benn structure di liggéey ñu la temps ngay am. nga dem xool sa banque mun la lii nga la am nga góor góorgóor dem ne da nga ci leb benn banque. banque bi jox la xaalis na da la koy dagg temps chaque mois da la koy dagg boo xoolee charge yi ngay dajale lépp ci benn salaire boobu. ba ci pré boobu ñu lay dagg. pour nga mën a am oto boobu oto boobu boo ko jëlee di ko toj. Mm-hmm. doo ko toj. Mm-hmm. léegi nag bu fekkente ni yow dangaa nekk ci côté boo xam ne yow leboo. Mm-hmm. amoo xëyoo gontoo. ku la romb da nga koy toj day yomb. donc côté bi foofu la ëppee maanaam fexe ba ñi nga xamante ni ñooy toj. ñi yaax. ñu fexe cent pour cent amul parce que États-Unis sax boo demee di nga fa fekk chômeur. mais nañ fexe ba gab bi. gab bi nga xamante ni ñooy ñooy taxawaalu. na nekk gab bu néew. c'est possible. d'accord mais euh, Sénégal nan la mën la ñu mën a ba jeunes yi am ben culture culture yu est ce que lolu da ngay tok diko xalat est ce que lan mo wara indi société sénégalaise ci degré de peut être euh, sadacité wala degré de violence bi est ce que éducation bi lan la éducation bi la wala lan la parce que elle nous sama ben grand day nan euh, Sénégal ñu wax plan Sénégal émergent mais plan Sénégal éducation. gëm na ni éducation bu baax Sénégal. man gëm naa parce que dugg n'a tout ay sous-région. Mhm. yar bi am fi mhm. am solo. gens peut-être 100% amul. Mhm. mais éducation ni nit ñi yar nañ seen doom li ñu mën. ça c'est clair. mais dafa am benen éducation bu des. moy éducation de la rue loolu nag pour nga mën a gab boobu pour nga mën ko absorber pour nga mën ko résoudre il faut que nit ñi am ci lu ñu nekk nit ñi foog ñu am ci lu ñu nekk. je te un exemple euh, chiffre bi maîtriser tuuma ko mais ñaata lutteurs ñoo am Sénégal. ñaata lut ñaata mbër ñoo ciy bëre. jóge nañ junni de wala ëpp nañ ko. ñaata ñooy bëri dans l'année. c'est ça léegi pourquoi pas par exemple je donne un exemple pourquoi pas ñu ne il euh, y a un lutteur au Sénégal région où nous tant tant tant nous chaque région au moins 10 promoteurs 20 promoteurs chaque mois nous parce que journée de lutte si nous ñu au moins nous parce que mbër bi da ngay suivre sont bi suy cachet bi doo leen ciy jox gis nga donc kooku emploi la mhm. léegi gis nga emploi bi ngay créer yow yaa ngi koy créer directement te yow doo bouger mhm. ñooñu bu ñu amee activité mhm. kuy toj danaa la sama làmb bee laa tal waaw mais ñooñu bu ñuy entraîné dama koy jox comme Thiès Thiès li fi am par exemple ci journée de lutte boo ko calculer bariwul si di jaxate moo fi nekk di góorgóorlu ak Baye Samba. Baye Samba. Mhm. il rencontre énormément de pour tëgg tey cees ñaata lutteur moo fi nekk mën na faal bi rek xoolal ñaata booy yuy xëy di entraîné wu suuf ba ngoon. Mhm. dem tëdd seen kër. xëy ñu gont bàyyi nañ lépp lu dul mbër làmb. problème mooy euh, écurie day bëri da ngay ñëw ville bu mel ni Thiès ville bu ndaw. Mhm. ñaar ñetti écurie du tax gars yi mën ñoo regroupé. mais loolu laa wax même bu leen regroupé bàyyi leen nañ tas na nekk enn écurie mais fexeel ba yow état nga organiser de telle sorte que ñoom ñuy gis seen bopp ci loolu ñuy def. Hmm. parce que promoteur boo jël. Hmm. financé ko. Hmm. demal nga tëggi nga ñëw fay. journée yi ñuy tëgg dañuy xor. ñu ngi for. li ñuy for xaalis bi nga leen lebal lañ ñëw di fay. bu ñuy fay nga créé beneen promoteur ci beneen ruux. mu dem nii mu dem nii mu dem nii tu multiplies à un moment donné. les gens dinañ ci làmb. ñi ne ci atelier mécanicien yi nga dajal leen. Mhm. mais at seen mécat li nga yor. Mhm. sa rentrée temps la. dinaa mhm. la abal temps. nga fay si boo fay siwul. sa morom bee mi ngi liggéey. di dugal ma do ma doubleel ko la ma koy fay. c'est vrai que c'est toute économie ah moom moo. war li nga xam ne moo di lit bi. au delà de mbër yi. mais moo nekk jaaykat yi dañ fay dem. mais si seen économie bi ñu war a capitaliser quoi bi ñu war a. capter lamb boo gis mbër boo gis. muy bëre ji. mu ngi cent mille enveloppe yu mu yor. di wër kër yi. autorité bu fa nekk dina ko envoyé ngir mu jàppale ko. mbër mi su fayee ko xaalisam. dina jox ki mu àndal ki koy tëggal. jox sëriñ ba. jox fii ba jox ba jox maire bay maire bay jaay caaf ci buntu kër gi di ko ñaanal. industrie la. mais industrie la mais industrie boobu wëral dans la sous-région amu fi. fii rek la am donc tu crées l'emploi indirectement. Sidi Diakhaté nga woo ko ne ko di am cinquante million ngi nii. njéem a fay chaque mois ñëwal nga versé. boo tëggee làmb pare ñaata nga mën a joxe mun a temps nga ne ko ni Sine day signé. dootul daw ci ginnaaw benn sponsor. ou bien nga jël benn entreprise na ko diw sponsor yi la diw saa yu soxlaatee làmb jox ko temps. banque yaa ngi fi. nga jël noonu wëlbatiku dem ci ci club football yi. mais club de football yi. waaw commencé na bëri Thiès non dooleel leen. école bi surtout. mais jëlal Sanef nga ne ko jox naa la cinquante million léegi sa rustun maa ngi xool ñaata ngay def rentrée d'argent mhm. astut bi dama jël mu del moom mu dem mu dem mu dem ci ci kees gi nga dem fay ko après c'est-à-dire c'est possible mhm. mais nag suñu bàyyee ñëpp seen foofu football bi ñu ah, bàyyi ko foofu mhm. maître Pape Sidi Lo boo ko nee Sénégal su tax coow li day daw ba dee pour yor joueurs yi encadrement ainsi de suite ñu yor lamb ji Non, non. Il y tous les secteurs né en ébullition mais c'est ça franchement moy suñu club fagnon. bo xamné situation bi mu ni japp na amul amul ku mu mm-hmm. mais bo le ñom ñu jël ko outil ay tubab mm-hmm. signé partenariat. Mm-hmm. parce que dañu sommes... dafa dafa metti ben loxo mënu ko yor. ana où sont les sont les entrepreneurs fan damay dund au delà de Thiessois dama état waaw. loolu benn entrepreneur mënu ko million deux millions dix millions man mii. Mhm. damay damay mhm. dañ pas besoin de ci nit ñi à gauche à droite. mais loolu du subvenir à leurs besoins mhm. il faut que ñuy am. état bi di maillage ceinturer. régions yëpp. fexe fu ci bi ñuy yor ñu wàccee ko ci secteur boobu am beneen équipe boo xamante ni moom de dres supervision xaalis boobu recouvrement yi si fi dugalee 10 milliards tu recouvré 10 milliards nga investiraat ko ci ñeneen boo amul 10 di nga am 5 ou 6 parce que ci askan bi de dugg je pense que autorité yi consciente nañu ci ci walu woowu parce que bu ma waxee loolu mooy euh, euh, gis nañu sport notamment football. Euh, ñaari at yi passé vraiment satisfaction. bi mu indi ci réew mi macha mais mais mais ni ni ni wooteel fi dans deux mois bo fi woté yenn événement bo boo matul gis kenn parce que bo yépp dañuy football nawetaan. absolument mais énergie bi ñi day di rayante ci nawetaan. Hmm. mais loolu li muy ci xaliss limi énergie bi mi daj. loolu mën nañ ko capitaliser ci lu bari mhm. ni c'est toute une organisation boo xam ne c'est possible mais gis nga boo jëlee boo jëlee néeg nga tëj ko jël muus tëj lépp mhm. jël yat bi jubal ci moom mhm. sa kaw la jëm parce que amul issue léegi nag après lu ci bëri mën na xam ku nekk mën nga jël sa commentaire maa waral lii maa def lii maa def lii mais am na benn taux boo xamante ni boo ko absorbé nit dina bëgg lu bal tàkk. te hmm. ngelaw du yëngu. d'accord man yàlla dafa def jaar naa Sococim. Hmm. jaar naa Ciments du Sahel. Hmm. suñ daan xëy le matin. bi ñuy doog a démarrer da ngay toog toute une de jeune dañuy toog ñun yëpp dañ daan toog fa jaar di xaar emploi oui dañuy toog di xaar emploi <laughs> maanaam ku manqué wala euh, tey entreprise bi dafa bëgg yokk production soxlaat ay main d'œuvre yooyu dund nañ ko. mais entreprises yooyu dañ ko war a multiplier dans les régions tey jii jota doon wax ma rek fan mm-hmm. am naa Tëngéej je l'ai vu à Tengue, je l'ai vu à Dakar mm-hmm. je l'ai vu dans beaucoup dans bon ma Thiès benn secteur d' entreprise boo mm-hmm. un jeune dina fa xëy dem toog pour Outil fa journalier pratiquement manqué na fi am de Glace fi am de Glace oui te dafay war a jógee ah non mënu fi jógee <laughs> ah. c'est impossible parce que mm. foofu ah selon les autorités quoi. je veux dire mais su ko jëlee erreur lay hmm. nekk. Hmm. parce que gis nga fofu boy dañ fay dajale ngir dàq sen xol. féexal sen xol. Hmm. waxtan fàtte seen souci mais bo fi jëlee erreur la. erreur la de parce que xanaa à moins que ñu ngi waxtan à moins que nga teg fa lu gën lolu d'accord parce que croissance jeunes dañuy gëna mag population bi day gëna yok entreprise yi nga xamante ni ñoo war jël nit ñi. y en pas donc ça cause problème. Mhm. jataay yi ñuy gën a yokk rek. d' accord loolu défi la boo xam ne euh, la municipalité xam naa war nañ cee taxaw ñàkkul dinañ dinañ la dégg. Mm-hmm. notamment le le le maire Babacar Diop wax nga quoi en ah, Thiès euh, ama amatuñu entreprise hein, franchement. y' a pas amatuñu entreprise. Euh, bon bon waxuma amul mais. Mm-hmm. très rarement nga koy dégg yenn structures yi. Mm-hmm.

demal dans ces entreprises là où la né ay dëkk mi ngi tak nañ naan la ban dëkk man waa lu xew. d'accord voilà mbokk prestige euh, FM 95.5 ba léegi yéen ngi ci sen émission euh, sans détour manam amul nëbbo ñu fatali ko ñu dalal président directeur général bi nga xamné mom moy groupe prestige di euh, Pape Doumbouya wax nañ ci question société yi waxuñu ci lépp sax mais peut-être nañ ci delluwaat dañuy ñëwaat tuuti ci li nga xam ne moo di. Euh, politique bi mouvement bi nga fi teg muy Thiès ca kanam ginnaaw élection yi ngeen def seen évaluation jamono ji tolluwaay bi lan la. tolluwaay bi mooy. ndax yéen a ngi massifié. ñu ngi massifié ñu ngi waxtaan ak nit ñi et puis nemmeeku nit ñi parce que bi élection yi passé ba léegi. Mhm. dañu toogoon noppalu tuuti. Mhm. après reprendre nañ activité yi. Mhm. waaw ñu ngi seeti mag ñi ñu ngi xool xam nañu li nga xamante ni aussi. moo ñu moo tax ñu ñàkk waaw euh, def nañ yooyu yëpp. Euh, mhm. li nga xamante ni loolu moo tax ngeen nekk. Euh, beaucoup de choses ah. waaw beaucoup de choses parce que mën naa ko basé. surtout da ngeen manqué woon expérience la. surtout. surtout mhm. loolu surtout expérience ñaar la. expérience ak appareil. des élections bokk humilité la pour. nga nangu ne. man manqué woon nga expérience. ñu bëri du ñu ñu des introspection boobu. en matière d'élection il faut une appareil et de l'expérience parce que appareil mooy tax nga am maillage territoire bi expérience moy tax nga xam fi nga ak fi nga accélérer fi nga euh, c'est extrêmement important. non <laughs> mhm. Mhm. Mhm. la. non en fait six mois campagne. tout seul avec nos maigres moins hmm. amul kenn sans coalition il y' a pas de Nous am le loo xam ne na nous hmm. dem am 1200 voix pour une première. nous hmm. avons juumul malik Malick May. bi muy njëkk nous dem élection 900 voix là. donc nous <laughs> avons suñu 1200 voix pour une première. je trouve que c'est extrêmement positif. d'accord alors exercice sur biram à parcours nous qui non man nag am naa habitude du ma euh, commentaire ci. mais politicien nga il faut nga il faut nga commenter tamit. non non je du ma ko def parce que xam nga nit ki. Mhm. man jàpp naa suñ ko fayal pour cinq ans. Mhm. ñun ñëpp dañ demoon outil. mais mais ah ah mais mais je ah pense que euh, du du du critique ñaax la rek. waaw mais man loolu sama sama principe la. Mhm. man daal nit ki buñ ko fayal pour cinq ans dama koy bàyyi mu liggéey pendant cinq ans. su jeexee buñ ñu tegaatee man lii laa gis lii laa gis su ma joxee lii ak nii mais pendant cinq ans. su ma ko mënee jàppale naa ko jàppale. mais du ma ko critiquer. nii nii non waxuma critique sax noo. noo gisee liggéey bi. parce que yéen amoon ngeen seen programme est ce que. jàpp nga ne sa programme Thiès ca mm. kanam. Mm. malgré que yéen nekkoo leen mairie. est ce que mm. gis nga ci pàcc bu ndaw boo xam ne yaa ngi gis ne waa Thiès Nord euh, ñu ngi ko ciy doxal. bon mooy li ma wax rek euh, euh, tey su ma fi toogoon di wax yu bëri mën naa ko ni lii ak lii ak lële. te su boobaa day mel ni man nii nii naa du dégg. Mhm. donc comme fal nañ ko pour cinq damay xaar ba cinq ans jot rek. jot rek nga ciy doog a commenté. waaw mu ciy doog a commenté. Hmm. Hmm. gisoon ne nga doon investir ci ci def wala euh, def ay jéego ay effort yu bëri ci euh, lu ci mel ni euh, inondation nga xam ne sonal na dëkk bi yëpp rawatina seen fii nii. Hmm. fii Thiès Nord nawet bi daanaka. Euh, dugg euh, est-ce que action yi ngi ci doon def yaa ngi xalaat continuer action yoyu malgré nekkoo commerce non absolument li ñu def côté social lepp tay lay gëna a yokk mais du wàññeeku parce que au delà de ça aussi ñun fi lañ dëgg suñu waajur fi lañ ci ni mbokk lañ c'est des parents suñu sëriñ lañ donc amuñu droit wàññi li ñu doon def au contraire li ñu doon def tay dañoo am devoir euh, yokk ko mais pas wàññi ko nawet bi nag mu ngi nii. waaw absolument xam nga fii fii li fi metti mooy y' a beaucoup de zones non édificantes c'est-à-dire des zones yoo xam ne kenn waru ci dëkk. Hmm. malheureusement euh, dëkkuwaay bi noonu la bindoo. donc ñun amoon nañ programme ni ñu ci bëri ñu ci bëri li gën mooy délocaliser leen. Hmm. parce que dañ nekk ci plan su ndox ak ci yoonu ndox. Hmm. parce que fii cuvette la. boo xoolee Thiès zone nord cuvette la. ndox yi jóge ci ouest yeeg yëpp day déversé fii lay déverser wu. mais population yi tamit dañoo dañoo amut pexe nekkuñu ci zone yooyu parce que da leen neex ci confort ne vraiment euh, loolu tamit eh, état bi war nañ ci taxaw politique d'habitat bi ah, euh, c'est vrai que ak il faut ñu dimbali askan bi parce que yombul ah, cher na et puis ah, euh, famille amuñ doole absolument ñun ñi personnellement ñu ngi liggéey lu bari parce que bon ci immobilier bi mhm. ñu ci ñu social bi mais aussi dafa am état rek waaw état rek ma ko mën ba aussi gis nañu état bi aussi mi ngi ciy jéem. Mhm. parce que boo xoolee côté ngent bi am na ñoo xamante ni dañ dëkkoon ci ndox mi. Mhm. quasiment ci ndox mi. Mhm. mais état bi tabax na ay kër ci ZAC bi ci ñu bëri jox nañ leen ba ñu ngi toxu. donc je pense que loolu la ñuy ñaan politique boobu mu gën di multiplier wu ci yeneen zone yi des. d' accord yow tamit da nga yëngatu ci wàllu éducation à part euh, média yi. créé nga télé. nga site internet. yaa ngi rajo am nga journal. ci côté éducation tamit bu yagul fété nga li ñuy wax la fête de euh, l'excellence lutax yow nga bëgg tamit manam yaa ngi partout. mais pas partout sax c'est que jéem la dal c'est pour montrer que rek ni eh, eh, gis nga boo xoolee boo demee ci dëkk tubaab bi soo dikkaatee di nga xam ni fii li fi des li fi ne ci mam àll bu amul dara ci cadre liggéey y' a beaucoup de choses qui restent à faire te mën nañ ko def. est-ce que comprendre là où je venir. Mm-hmm. mooy nii loo créer rek mën nga mën loo fi mënti créer da nga ko war a dañ ko war a lu ñu war a créer la mm-hmm. est-ce que comprendre li ma la mm-hmm. waaw loo mënti créer boo ci taxawee tuuti rek day dem. day dem day dem. voilà léegi nag malheureusement les gens ne créent pas cest dañuy teg dara tey suba. ne non doxul rek bàyyi. duñu xaar. génie baa ngi fi daal xam-xam bi. génie baa ngi fi force baa ngi fi talent baa ngi fi mais duñ ko xaar.

faut laisser le temps de faire son temps pour que loolu mûrir. Mhm. et ce fait que da ngay tay tay tey benn ñaar at nga découragé mais tu tournes en rond. dama déglu Lat Falalaius moom moo créé cimenterie du Sahel. Mhm. mu est 1976 le bind projet bi. 1976. 76 projet bi voit le jour en 2000. 2002 le Abdoulaye inauguré gis nga traversé du désert bi mu ne dund naa coono dund naa lii daj naa lii ba patience patience fii nag da ngay ubbi atelier mhm. nga ni tailleur nga mhm. nga dem benn at affaire bi doxul mhm. nga courant bi day coupé nga sànni yére machine bi baaxul nga sànni yére yi alors da nga war a valoriser ko insiste ci insiste ji dañ la fay fekk si. d' accord absolument. waxoon naa ko sànq dañuy dellu siwaat waat ci question politique yi euh, président Macky Sall jël décision comme ni ko waxee sànq moom du bokk ci euh, élection deux mille vingt quatre yi février ñu bëri jàpp nañ ne euh, déclaration président Macky Sall def noonu maanaam dellu siwaat na jàmm ci Sénégal parce que gis nañ ne ñaari at a ngi nii comme ni ñu koy waxee. jàppal bàyyil bi dafa bëri ci réew mi est-ce que da ngay xalaatee comme ñooñu ne Macky Sall décision boobu mu jël rek doy na pour réew mi nekk ci jàmm wala des na yeneen ci yeneen euh, mbir yoo xam ne war nañ ci liggéey ba assoir définitivement la paix ak stabilité bi nga xam ne moom la ñu xamee Sénégal surtout notamment euh, ci euh, sous-région bi. waaw loolu benn pàcc la ci. Hmm. waaw mais ñëpp xam nañ tey ji dossier ak Ousmane Sonko loolu tam il faut ñu régler ko. parce que daf ci bokk. waaw il faut ñu regle ko. buñ ñu ko régler rek et fexe ba bis ngi li ñuy bañ. Mm-hmm. loolu foog ñu am ko. Mm-hmm. mooy cadre yëpp toog waxtaan. Mm-hmm. waaw loolu rek moo koy régler leneen du ko régler. mais eh, non gars yi ñu bëri nee nañu moom ginnaaw demul candidat xam naa Ousmane Sonko ak gars yi bu ñu génnee sax kenn du leen topp wala loolu erreur la. ah Abdoulaye Wade daal nee na. Mm. en matière d' élection. Mm. benn carte sax day nee na benn carte. Hmm. day compté déglu naa la ministre Augustin Tine benn bis mu ne dafa am élection yu amoon fële Fandène ci dëkkam. Hmm. mu ne am ku ñëwoon ñu xaw a tayal di voté ji mun leen ah yow daal ñëwal ñu dem rek ñu yóbbu la nga voté. Hmm. moo gën a wóor bi ñu ko yóbbee ñu voté nee na benn voix boobu la ñu rawee. plus rek. plus rek donc nit mu tëdd ci dëkk bi. ne ci dëkk bi. am lu mu fi def. am ñu ko yaakaar ñu ne tekkiwul dara jàpp naa ne dañu war a tëg waxtaan te it le président Macky Sall xam naa ne en matière de politique fii Sénégal xalif la fi quoi te loolu man gëm naa ni mën na ko xarañ na ci daal absolument hmm. mhm. ah, mais est-ce que bu ñu bàyyee mbir yi nii euh, jàpp nga ne est-ce que bay woyul mbuus ci côté Ousmane Sonko ba léegi mën nañoo kiwaat mbir yi bay woyul mbuus man euh, xaw ma

Mhm. warul dagg ci côté yëpp nag. Mhm. waaw parce que gis nga buñ dul waxtaan. Mhm. nee naa la Russie li leen gën a sonal mooy. dañoo nangutoon waxtaan. tey toll nañ ci xeex bi foo xamante ni ñoom ñaar ñëpp bëgg nañ rek bëgg nañ ci génn. parce que départ bi lañ faussé. mais ba waxtaan tamit da ngay waxtaan ak koo xam ne jiboowuloo ak moom parce que gis nañ dialogue bi fi jàll. daanaka ñi nekkoon ci dialogue bi yëpp observateur yu bari dañoo ne eh, ñi demoon ci dialogue bi ñooñu daanaka amuñu benn problème. amoon na koo xam ne peut-être c'était une pièce maîtresse ci dialogue bi. demul. Mhm. est-ce que c'est pas regrettable. c'est non seulement man man foofu rek la comprendre personnellement. Mhm. man comprendre mo foofu Ousmane Sonko. Mhm. man li ma gëm moy dialogue boobu da ci waron dem. amoon na fa place. si bu mag bu bari sax. gis nga à un moment donné sooy xeex di xeex imaginez pendant deux ans ngay xeex te xeex bi il est tout seul. mais su de tout seul yow rek boo ko xool benn nit fii trente minutes ngeen songoo. Hmm. cinq minutes nga doyal ci. Hmm. mais tu te rends compte pendant deux ans. Hmm. moom mu nekk ci terrain bi di wax. di dem di daw mais moom am nañ jabar am na nay doom. am nay xarit mais du ñoom beneen vie. à un moment donné mais lii danga ko war a stoppé. donc lii ba mu ñëwee man kenn du ma fa jiitu. occasion la woon. xam nga tey man pour man sax loolu erreur président la woon oui parce que tey ji ak li xewoon yëpp mhm. su sonk Sonko ñëwoon tey dugg ci dialogue bu day nekk gestar bi ah day nekk patron bi mhm. parce que moo ni mhm. moom président moo ni fii amul sujet tabu nest lépp la ñuy waxtaane mais damay ñëw ne ko man samay prisonniers ñëpp nañ génn duñ leen bàyyi li est obligé. kon jàpp bu demoon déclic lay doon. ci coow yi fi boo xam ne Sénégal ñëppay noyyi. c'est-à-dire muy chef religieux. Mhm. muy église bi. Mhm. muy jàngu bi muy ñëpp ñëpp naan alhamdulilah. Mhm. parce que saal boobu boo ko xoolee ñi toog ñëpp waxtaan ka fa ree fa. Bamba Cheikh gis nga discours bi mu tenir. discours boobu c'est de haute facture. c'est ça. lan mooy tax ba. moom du am li mu bëgg. gisuma ko eh, Isidore hmm. su ma wóoree ni fee ñuy dem ne man comme discours am ni mu ko waxee hmm. dañ fay complot ji hmm. te ñëpp dem nañ kër gi fukki nit a fi ne juróom-ñeent yaa ngi dem toog fee di waxtaan yi même su ma jàppee ne dañ may rey damay dem toog foofu ñu reyee ma foofu eh, de toutes jàpp na ne complot moo am ci mbiram moo tax nangu te toog ak gars yi waxtaan ak ñoom tamit mais raison de plus parce que juróom ñoo mën benn juróom-ñeent. Mhm. ñoo mën benn. mais man bu ma ñàkkee confiance ci mhm. yow est-ce que dina yow mu ma togg ak yow. déedéet foofu dootul nit dootul moom ak président cest à moom la ak askan wi. sénégalais yi. ak sénégalais yi ak observateur yëpp mais tu t'imagines mu soloon dàllam. Mhm. dem taxaw foofu ku bi muy marqué. maanaam yow xeex nga deux ans. bi waxtaan jotee nga ñëw taxaw ne maa ngi nii. def na ko ci Covid bi. waaye Covid bi si. tax na est-ce que tax na. Mhm. dara wàcc ci moom. Mhm. dama wuy mhm. bi mu gisul lu mu xam. delluwaat na këram. su woote waatee. damay wuy ci waat Ablaye Wade ñaata la wuy Abdou Diouf. duggul sax ba ci gouvernement bi. ba mu waree jël réew mi jëlu ko. kon kay histoire jàngal nañu lépp. Eh, gars yi nee nañu jamono jooju y plus d'élégance dans la politique Ablaye Wade. Abdou Diouf étape bu ne. voilà bu ne. jamono yi bokkul jamono bu ne. Hmm. ak jamono boo xamante ni moom la méngool. Hmm. jamono boobu est-ce que ay gasa gasa amoon na. waaw dégg ju ko woon. peut-être euh, d'une sol sama trait taxaw ne dig ma rey baa ma rey la. Hmm. amul woon. gis nga def na ñaata weer ci kaso gi. sept mois. est gis nga génn na gasa gasa. il faut que ñu <laughs> mais maintenant sept mois ñu tëj la ci prison. erreur la gàtta gàtta bi. non waxuma duma duma duma commentaire nit lu muy def. wala mënoon naa ñàkk. ligne éditoriale ligne bi muy doxalee moom moom moo ko xam. Hmm. dama koy nangul. Hmm. mais dama jàpp ni. erreur bi gën a bi bi gën a rëy. Hmm. foofu foofu la maanaam ñàkk. ñàkk dem ci waaw man pour man erreur la. man luma gëm la mhm. te luma sama xol dama ko japp ni mhm. dafa waroon dem parce que à un moment donné aussi ñun dañuy dañuy suivre rek mhm. parce que bo gisé relation ak Barthélemy Diaz ya ko fofu la joggé parce que ku wax deug na jaal rek xam ñun xamuñu parce que Barth nee d'accord na jallo gi hmm Barth waxon na nanguna dem di waxtaan ñi ngi doon waxtaan mais loolu duma ko dagg pour rien au monde ku am dëgg yàlla rek moo xam ñun xam mhm. mais moom wax na fii waxe kay wax fee. Mhm. mais man li ma gëm mooy yoon bi foofu la woon. d'accord parce que aussi Bart aussi. Mhm. li sax mu dem xam na ko. tey yii am na benn épée Damoclès bu tiimoon ci bopp bi. mais su dem woon dialogue mhm. non seulement day dootul nekk député. Mhm. mais poste maire Dakar bee sax boo moytul da koy ñàkk. daa daanaka dafa topp xalifa rek. non nañu waxante l'essentiel naa bokk rek. xalifa Sall loolu la <laughs> dëgg. Mhm. l'essentiel naa bokk. xalifa li mu dund. mais ñaar rouleau compresseur état xajul ci doomu aadama. à moment donné nag. xalifa moo gën a metti lay yaayam wàññeeku na ainsi de suite. mais. bi mu xamee ni dafa war a dem pour réhabiliter boppam mais dafa dem toog cest à expérience politique hmm. expérience de la vie loolu dafay baax benn maturité nga koy am à un moment donné de la vie d'accord parce que hmm. nañu nangu tey jii hmm. ñi mënoon taxaw temm ne Macky Sall du teg troisième mandat ñu ko gëmul ñu ko gëmuloon bëriwul de bëriwul de donc tey jii le fait que mu xëy rek teg loolu jalon boobu mu teg non dafa dafa dafa tas lu bëri. Hmm. dafa yàq lu bëri. il gagne en sympathie. non Oram dafa mais dafa dafa dafa jóge du simple au triple. Hmm. c' est ça man gis naa ñoo xam ne daaw Macky Sall lañ doon bañ a dégg. Hmm. mais tey ah, di de nee na dootu ko sori de xaw ma ne ko. <laughs> lan la ci gis ba naan dootu sori. président Macky Sall mais mais c' est le faiseur de roi. parce que tey jii. président Macky Sall ku mu jàppale ci élection yi. ku mu nekk sa directeur de campagne. mais saa yi di nga hmm. hmm, rawee gars yi dina bari trop. ñu waxante dëgg parce que bu dee expérience am na ko. bu dee tur bi am na ko. bu dee rusel bi nit ñi rus nañ ko. Hmm. donc ku mu woon ne ma jàppaleel ma diw. di nga ko def. d'accord mais élection inclusive mooy ni ñuy wax maanaam ñëpp bokk ndax mooy sa yéene yow tamit. absolument parce que moo gën ci réew yi parce que su amul day am lu goût inachevé day am. day am lu manqué. Ah. waaw am na cas boo xamante ni. day manqué. parce que mhm. euh, euh, day gens lu inédit musul am la mhm. am musul élection bo président fi nous du musul donc les mhm. sénégalais ils vont choisir librement c'est ça aussi li nga charme élection charme élection mhm. sa vraiment euh, bokk. ci a bokk. ñu bokk ñëpp ñu ci war a bokk. waaw c'est précision bi am parce que euh, quoi qu'on puisse dire. Mhm. je dis je répète moi, ni. Mhm. justice bi fi justice absolument conseil constitutionnel validé. ñi mu validé man validé. man ñooñu d'accord du ma xaar. mu yoon sa état de droit la état de droit moom euh, am na ay bànqaas yoo xam ne euh, ñoom ñooy. saytu kayit yi nga xam ne moom la ñuy teg ñu xool Duralex Sedlex voilà euh, Duralex Sedlex comme on dit voilà la loi est dure mais mais c'est la loi il faut ñu ñu nangu ko muy lu am solo pratiquement ñu ngi ci fin wu émission bi toujours dafa am ñi may dégg ñu naan bu ñu xoolee par exemple Ousmane Sonko ak li mu defaroon yëpp yëpp yëpp boo xoolee jamono ji pratiquement c' est du gâchis. mooy yow yow yow nga nekk nga nekk vraiment. mooy mooy première manque. Mhm. d' expérience bu Ousmane Sow. Mhm. xam nga damay déglu ay dombo mu ne euh, ci campagne yi dafa am ay leader yu ko doon woo na ko dimbali ma rek Ousmane jaar sama koñ bu fa jaar rek man damay gañ. Hmm? ouais ay j' ai écouté mu wax ko. absolument Ousmane ñi mu mu ne Ousmane ñi mu jaar fu ñëpp tax na ñooñu gañee hmm. léegi On te veut dire que euh, capital de sympathie, bon, c'est extraordinaire. Mm -hmm. Mais du côté investiture, il faut de tu Non, il Voilà, les conséquences, il y a des conséquences. Il xolal kan moko wër ci ñi mu investir ba ñu gaye kan moko wër kan mo desati ci ci côté di ko xeexal Il n'y a plus personne. Biram Souley, un problème. Il n'y a plus personne. Bassirou Diomaye. Il n'y a plus personne. Elaj Malik Ndiaye. Et puis, li gën a metti li gën a ci ci ci ci yooyu. Mhm. Dakar. Dakar oui. Dakar. Mhm. ku gagné maire Dakar. da mhm. ngay contrôler lu bari. déglu naa euh, kii Ndiaye boobu doon kaas parce que Dakar TikTok politiquement. ñoom dañoo waroon am candidat ainsi de suite mais c'est la réalité. ça veut dire que mooy wane nii. c'est mhm. un jeune, il manque beaucoup d'expérience. il a la du il y a la may lépp. Mhm. yàlla il y a la ko may xëy na eh, moo waral yenn détails yu bëri bon jugement ah, dañuy dañuy waxtaan rek mhm. si moi rien contre lui mhm. ah c'est un jeune boo xam ni eh, tey seen yi nangul nañ ko c'est ça la réalité Thiès également bataille bi xam naa dina métti de Idrissa Seck mhm. euh, candidat la Macky Sall nar a am candidat day am rëbbalot Idi nga xam ne bon ni mu meloon Thiès mën nañ ne wàññeeku na Thiès day am amatu fi maire amatu fi député amul dara c'est du euh, conseil amna ay conseil ci ci mhm. mairie c'est mais loolu est-ce que doy hmm. donc ties dina amat benen redistribution des cartes mhm. ce qui est sûr et certain moy hmm. yewi mom malgré mo gagné les quatre maires hmm. mais gëwuma mu gagné fi mais ah bon bien sûr parce que tay jii lan mo desati ci yewi en tout cas ñooy gérer commune yëpp waaw mais mais mais tay lan mo desati ci yewi ci commune bi yewi bi grand yewi bi gagné won tay jii est-ce que ñu ngi àndati. de toute façon kenn génn gu ci hein, officiellement ci Yewwi Askan Wi ah. ñetti maire yi. waaw mais man gisuma euh, gis gisaguma bokk waxuma eh, mais gisaguma. Mhm. Eh, cohésion boobu ñu amoon depuis le début. mu amaat parce que daanaa gis. Mhm. ñoom ñëpp ñuy ànd di liggéey di wàcc ci terrain beeg yooyu. Mhm. mais depuis quelque temps gëj nañ ko gis. n'est-ce pas. est-ce qu'il y a je ne sais pas. mais ça veut dire que Thiès moom ak lu mënti am. reconfiguration dina am parce que si je me trompe pas. Hein, euh, le monsieur le maire Babacar candidat là. candidat là, waaw wax n'est-ce pas te du candidat du candidat Yewwi. vous hmm. voyez hmm. donc ce qui veut dire que. Idi Idi tamit candidat la. candidat benn ah. waaw waaw mooy moo tax ma wax la lool moo tax ma ne Thiès politiquement reconfiguration dina amat. Hmm. ni fi a gagné ñaari élection Bon, euh, moom xam naa mënatul nekk. d'accord est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Pape Doumbouya bañ a jàppale Idi bu bañ a jàppale candidat président Makissa Sall. mu bañ a. mu bañ a jàppale idi ci élection yi di ñëw hmm. mu bañ a jàppale kii doon candidat président Macky Sall non franchement je pense pas hmm. soit hmm. idi wala ki ki Macky waaw loolu moom c'est sama conviction la quoi waaw loolu am am naa ci yaqin am naa ci yaakaar wóor ni moom suñu candidat du génn foofu quoi mais même même boo gisee euh, programme bu gën programme ñaari programme yooyu bu idi ak bu waaw aussi dañ bëggoon en fait dañ bëggoon man toujours dama bëgg nekk cohérent waaw logique suite logique ci li ma doon def waaw man dama bëgg lu cohérent bëgguma làmbaatu hmm. voilà man moom damay bëgg toujours li may am mu am continuité hmm. ba mu jeex ma xam ne lii jeex na hmm. après ma xool leneen d'accord absolument mais di dugg fii génn fii dugg fii jeu de chaise musique politique yooyu man j'aime pas non non non non d'accord c'est clair wax nga ko soit Idrissa Seck wala kii président Macky Sall euh, di tekk euh, am na beneen erreur tamit bi nga xam ne yenn saay gars yi dañ koy def euh, euh, diw Thiès la dëkk wala diw Dakar la dëkk mën Dakar laa dëkk moom lay jàppale est-ce que loolu du erreur ci politique. bon ci ci ci ci ci ci ay ay ay niveau la ay ci ay niveau la. Mhm. parce que jàpp naa ni man de peut-être yàlla balaa ngaa laax jaay laax lekk. Hmm. très honnêtement man jàpp naa ni su fekkente ni. Euh, candidat Thiès am na profil bu baax. Hmm. pour man Thiès bu amee profil bu baax. Hmm. balaa ñu uti feneen nañ ko jàppale. loolu moom vraiment man man loolu laa gëm. parce que aussi Thiès li dafa jot quoi imaginer mhm. Thiès waram euh, politiquement Thiès dafa bokk. Mhm. Thiès mais grande ville en plus fi ñu jëm nii après ça et puis fi ñu jëm nii Thiès là. ah oui avec déclassification burkaat bi dëkk bi aéroport bi. ba tey yaa ngi gis mi ngi ñëg si ba fii. enjeu la daal Thiès enjeu hmm. mi ngi donc tay jii bu ñu bu ñu yàlla mayoon ñu am njiitu réew boo xam ne Thiès ko. Hmm. dina gën a plus. pour hmm. doomu Thiès d'accord. voilà pratiquement comme nous ñu ko waxee ñu ngi ci fin wu émission bi mu nekkoon seen premier numéro émission sans détour madame euh, amul na boo ñu amoon plaisir vraiment. Dans le président directeur général du groupe euh, Prestige di euh, Pape Doumbouya vraiment merci ci nangul bi ñu nangul euh, ñëw ci premier numéro bi nga xam ne mooy émission sans détour maanaam amul nëbbo euh, ñuy gërëm tamit euh, auditeurs yi nga xam ne moom la ñoom ñoo ñu doon déglu ci émission bi muy premier numéro bi ci dimanche bi 9 mm. juillet 2023 ñuy gërëm tamit suñu sponsor ak suñu technicien yi nga xam ne ñoom ñoo ci jàpp ba mm. émission bi mën a yemb ma fàttali ne mën nañ ko déglu ci li nga xam ne nag moo di à chaque fois euh, ci 95.5 di Prestige FM mën nañ ko déglu tamit ci plateforme que ça soit ci site internet bi ak yeneen support euh, monsieur Doumbouya ñu ngi lay gërëm bu baax premier numéro émission bi. waaw ngi lay remercier di di remercier ñi nga xamante ñoo aussi ah. euh, Fall Akim Daouda Gueye El donc ñu ngi remercier ñëpp di la remercier yow tamit ah di di di wax ni rajo bi vraiment bi mu démarré ba léegi euh, ñu ngi ñu ngi ciy góorgóorlu. Mhm. Ah, c'est une première et une expérience. Mhm. donc euh, su ngeen nangoo ñëw di jàppale c'est parce que gis ngeen aussi liggéey bi ñuy def. Mhm. ñun tamit loolu amuñ ci lu dul leen remercier di remercier sama gars yi. Euh, comme on dit mën nañ ne c'est la première radio radio vision ci région bu Thiès. muy prestige. absolument absolument te mu nekk ay jeunes yoo xamante ni vraiment ñoo ko créé mettre en place. Mhm. diko accompagner depuis le début. Mhm. donc ñu ci ñaan ñu ñaanal ñu. Mhm. di nuy ñëpp di remercier nous ah, hein sama Mahmadan Cheikh Fall bu Abdoulaye Farndal. aussi c'est euh, euh, sëñ Alpha Dabai ma mhm. famille Yep Yep. yep aussi vraiment. d'accord voilà chers auditeurs euh, nous dimanche prochain bon repos nous allons dig que dimanche bi nga allons dire la émission sans détour madame amul Fiti Prestige FM ci micro bi Isidore Alexandre Sène la woon bi nga xam mom moy mooy di nek ak chaque dimanche ci émission sans détour jërë ngeen jëf.